xëcc ngeen transhumant yi loolu ngeen ko waxee ne da ngeen di rëq seen digg sàcc yi fii mhm. jàpp leen sàcc yëpp tëj leen ba dem caabi gi sànni ko wax ma la géej xool ginnaaw géej non lañ ko def ginnaaw géej parce que bu ko deful xale yi duñ dof ay Thierno Diop jërëjëf wax xam ne ñu Macky Sall defoon te kër yi ba 25 personnalité 25 personnalité ñoom la ñu waxoon ne ñoom ñoo sàcc alalu réew mi à l' arrivée on a vu ce qui s' est passé avec Macky Sall mhm. kenn nit lañ jàpp muy Karim Wade ba mu neex leen ñu génné ko exilé ko xawma fan yóbbu ko Qatar les autres après dañu daw ci Macky Sall ils n'ont jamais été inquiétés et je pense que pour cette fois aussi ce sera la même chose mais loolu moo parce que dañoo daw seen loxo setul sàcc nañu alalu réew mi ñu ni genn gi daw nañu ci ñom avant la présidentielle amna ñu nak ora yow nee na nee nga pesé Sonko sur ces sur ces résultats euh, transhumance yi ci am ci part donc ils vont réclamer leur part du gâteau kan moo leen di wax delluwaat leen kaay ma tëj leen. xam nga moom laa lay wax ah? nii dama leen ko ñaan. li ngay wax nii moo ah, andi. waaw toll wax nii. Hmm. moo andi xale yi ñu toppee Sonko tey il faut l'admettre. maam nit ñi découragé bi ñu découragé ci Macky Sall. Hmm, hmm. moo andi Sonko. léegi ñoom tamit Sonko pourra faire la différence. léegi ñoom tamit bu ñu doxee ci tànk yooyu. les mêmes causes comme nga on ne résout pas un problème avec le mode de pensée qu'il a engendré mm-hmm. les mêmes causes vont reproduire les mêmes effets mm-hmm. et effets qui dafay exacerbés. plus que par le passé mm-hmm. Moi, tax bi reddition de compte dafa une obligation ça devient une nécessité nécessairement nécessaire parce que justement mairie bëri ñi tey di transhumance dañuy tudd ci ay affaire souffle. man damay dëkk ak ñoom xam des sama genre nous agressé ñun durant ces dernières années xoolal man ana benn de nii boo duggee ci benn commune fii damay bañ a personnaliser débat

te tey yaa ngi nekk ci sous région boo xam ne dafa bëri coow. Mm-hmm. manipulation yi bëri. Mm-hmm. mu am benn guerre numérique entre russe américain yeeg français yooyu yëpp. Mm-hmm. champ manipulation boobu. bis bu xale yi meree dañuy dañuy encore perméable ci loolu. moo tax baaxul. tey dañu ñaan xoolal reddition des comptes bi. parce que du yoon Sénégal ñun ñu ngi sonnee. dërëmu Sénégalais yi koy sàcc. du yoon dañuy waxante dëgg. léegi nag cette affaire de transhumance la. fexe nañ ba ba ba dugg ci ñoom mhm. mais au moins dañ ko rectifier noonu léegi li mhm. nga ko mën a rectifier mooy mhm. mbugal leen transiment yi toroxal leen leen duma leen leen comme ni ma la ko waxee tëj leen ji ci sàcc da leen di tëj wax ba damm caabi ji wax ma nga sànni ko géej mais ginnaaw fan kii géej bi mu tuddati fële ginnaaw góor nga sànni ko foofu ginnaaw kuli koro ginnaaw kuli koro nga sànni ko foofu parce que ñu ñàkk jom daal vraiment dañoo ñàkk jom waaw ma ne. dégg ñoom nee nañu comme am nañu majorité léegi lu ñuy xaar mooy haute cour de justice. waaw pour poursuivre euh, ministre nga xam ne. Mhm. nee nañu dañu jalgati. ak éventuellement l' ancien président <laughs> Macky Sall. xanaa du ñooñu rek ñoo sàcc. xam nga xam directeur yooyu fan la ñu xam nga lu ma def rek ñoom bu haute cour moo doon di. poursuivre mais ñoom. ñaañu dañuy tere dañuy génn aéroport. waaw ki ñu jox a génn aéroport bi kan la. ah Mame Mbaye Ndiaye. Macky Sall. Macky Sall waaw. comme moo ko jox avion suñu demee. comme moo jox avion ñoom mais budget dafa Macky Sall bu ñëwee ñu jàpp ko. mais budget dañoo fonte dañoo coxatal seen bopp di reetaan. <laughs> non non dañoo teg nit ñi. dañoo coxatal seen bopp di reetaan ñoo def waaye ñun kenn defuñu de. ah vraiment. c'est que bu fi nekkoon rek moo fi nekkaat nee naa la. Ah? ah vraiment vraiment man daal xamu ñii daal. genre genre genre euh, euh, kii xe kii la daal. gérante gérante. yaa ma tooñoon ñëwoo ci man dinaa la jàpp yóbbu la ci prison bi ñi nga xam ne topp nañu sama ginnaaw comme ay xar nag. waaw ma bàyyi leen donc pour récapituler. deux millions mhm. ñuy def mhm. moo tax. ñu bëri bañ a voté waat pour ñoom. mais même ñu voté il faut les comprendre. parce que tey ah taux de taux de participation bi <laughs> tiitaloon nañ nit ñi. non taux de participation bi baaxut. waaw cinquante pour cent la ñu wax. non parce que Sénégal dafa am. dañu dem di génne ji nit ñi pour ñu voté. dañoo génne nañu ci ngoon bi. très bien waaw waaw treize heures. loolu ñaar la taux était di à dix pour cent. loolu ñoom ñoo ko mën. ah ñoom xanaa borom doole yi ak borom doole yi. waaw mooy transhumance. waaw ñoom la ñoom la ñoom ñoo def parce que am clientèle waaw waaw dañu avance dafa bëri ñu waaw ñu ko dañu jënd hé kay fay ko jëndal ordonnance da nga dem jënd surtout à l'intérieur mais c'est ça absolument xam nga ma gisee la presse comme ça ay titres ngan yooyu moo tax mel ne le journaliste doit se contenter du sujet du verbe du complément et non s'encombrer d'adjectifs on aime trop le qualificatif non tu ne bon ré waaw dañu waxtaan rek quoi xam nga bon razzia waaw

et ma fal opposition donc jox nañ leen doole ji maanaam jox nañ la ceeb bi jox la kudd ne la lekkal léegi ñoom seen parce que les sénégalais yi xaaratuñu ci dama leen gasta Garsa, xeexa xeexoo xuloo lu xaar askan est-ce que tu penses que dinañ d' pendant longtemps au Sénégal dafa am couplage entre législative ak présidentielle. Euh, 1967 dafa war am élection ñu prolongé.